yéen damay ŋaay tànk boo la yor ci non waaw waaw di lancer appel rek waaw di sensibiliser ñëpp pour la non violence gis nga boo ñëwee. dëgg lii man maa ci man maa ci bàyyi xel man maa leen gars ñu ngi doon dem ay open presse mais journaliste yi amuñu temps liggéey et mi ngi yàqu man leen yéen seen mbër mooy ambassadeur pour la non violence pourquoi pas ngeen mën a organiser open presse bu jaar yoon gis naa ni bu amul 100 pour tamit am ngeen 90 pour cent ah. seen liggéey xam Pikine wan nañ ma ñoom gën nañ ma wan rek comme doomu Pikine laa yaa ngi dégg fii laa judoo fii laa yoroo fii laa defee lépp tamit xam rek boo xam ne yaakaar ni ndam bu baax rek indil naa leen ko kon tey ñoom tey ñoom bu ma bi ñoom wan nañ ma ne doomu Pikine nga bu baax a baax mais man bañu ma arro Sathiès mën na cee dem arro nga ragal mun bu demee arro ma dem arro yëpp benn la ñu ñaar ñëpp mën nañ dem arro mën nañ xeex ba gaañante loolu lamb ji moo loolu ay xale lañu buur dañuy bëre combat xale ay xale la ñu man bari ma ci gaayante mais li may bëri naa ko teg ci yoon te incha allah te incha ndam laa bëgg ñu ngi naan suñu borom defal ñu ci barke Cheikh Amadou eh, dañoo gis waa Pikine am ay mbër yu fi génnee dem stade amitié def ko nu doy waar mobilisation dégguma de ñëwal dañoo gis mbër mu jugee Pikine dem stade amitié def ko nu doy waar ah. ci côté mobilisation foo ci tool waaw incha allah noonu le 11 di gis ci mobilisation lu am lu doy waar loo xamante ni yaakaar mun na mun ngeen ko yaakaare si Boy Niang mais jàpp ma ne ngeen ko ci Boy parce que ci jàppale Thierno Ndom Ba maa koy béggee bu baax yaa ngi sama kër fi boo duggee Modou néeg bi xoolal instant yi kenn xamul mënoo wax ne dugg ndax t-shirt ñu may ma t-shirt yu bari dagal ma ay yu bari yaa ngi dégg Pikinois di wax képp kuy fan si Boy Niang wala ngay Pikinois ak foo dëkk boo bëggee t-shirt bëgg billet ñëwal koñ Boy Niang am t-shirt di non man moom mooy lool nee naa la benn fasaam ñaari kii benn tàng ba ñëw ah. gis nañ waaw dem naa waa kër Cheikh na Cheikh bu baax dem naa sama waa kër maam Cheikh na Cheikh bu baax ñu ñaanal ma bu baax a baax di wax képp koo xam ne kullu sérif su ma waxee waa kër Cheikh na Cheikh Saad waa kër Cheikh na wul du maamin ma ne ko daj naa ñëpp bàyyi ma kenn Cheikh Aya mi xalifa bi di ko ñaanal suñu borom guddal fanam bu baax a baax dem naa samay mbokk waa kër samay mbokk waa maam Cheikh Girim ak Cheikh yi nga xamante ni ak cheikh yi nga xamante ne cheikh ma saabu seexal na leen bu baax waa cheikh de calaw gaynde nguraat di ko bëgg bu baax waa sa ajuma ba waa maam cheikh yilim du mat sek tey paata sarr ñëpp képp koo xamante ni fam euh, cheikh na cheikh sall moo la seexal ngay cheikh tey joboote yëpp def nañ joon ñaan maa ngi leen di sant bu baax eh, en français pour journalu télévision yi waaw waaw posez ma question ma doon foo toll ci sa préparation ah oui. mais Boy Niang wuy ma tey mosoo bëri stade amitié te ñu bëri stade amitié. non stade am kooku moom la war def ak yow na ko war a bëree boobaa. loolu loolu challenge la maa moom yëpp man ak sama adversaire yëpp c'est la première fois ñu bëree fa yaa ngi dégg suñu ay mag ñoo fa doon bëree te gis na ko yaa ngi dégg ñu leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax di wax Modou. waaw maa ngi gërëm bëru Pikine Tyson Baboy Bac Seras Ama Baldé Eumeu ñu suñu grand bi ñëw léegi rafetlu nañ ko Jadli ñoom mëppool ma nekk France waaw ñëpp daal Modou bu ñu limee dañuy juum boo Aliou Mané boo limee sax doo matal daal mais jàpp na gars yi jàpp naa ñëpp képp kuy mbër di Pikine boo ñaa mi ngi sant mi ngi gërëm bu baax a baax dina gis naa taxawaay gis nga sama papa yaa ngi nii Pa la Pape Diop Boston père papa Timini père Léegi sama sama papa yi ñëpp du ma limee dañuy juum ñoom booy juum sama papa yi nga xam ne sama papa ñoo nekkoon di bëre ma waaw monsieur le maire Issakha xam nga waaw xam nga li moo tax waaw dégg ma ñëw dégg ma ma ñëw président sama président xam nga li moo tax lim neexul